Pape Ibrahim Faye salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Babacar. yow yaay directeur général CROUS mooy euh, kuréelu nguur gi nga xam ne moom lañ dénk lépp lu jëm ci nekkinu étudiants yi ci université euh, Gaston Berger bu Ndar université boo xam ne la lañ fa seetlu mooy weeru septembre ba léegi étudiants yi dañuy lekk te duñ fay ngénte tubaab. xam naa ni baat nañ record bi ndax ngénte tubab ci ben ñaari fan lañ ko daan seetlu ci université waye bi mom mm-hmm. ay weer a ngi nii am ngeen ni euh, li ngeen ca perte mi ngi bëgg a jege millions ci li ñu jot ci euh, xibaar euh, xayma gi fu nu toll nii ci pertement geeg dépense yi. waaw ñaari ñaari pertement la parce que boo jëlee mois de septembre parce que ñun dañuy fonctionner par année budgétaire boo jëlee mois de septembre mois de décembre pratiquement ñoo ngi ci perte 175 millions en recette interne mais ci période bobu tamit avons pratiquement un milliard cent millions de francs CFA aux repreneurs. parce que ci bi restaurant yi bu ñu fàttali état Sénégal qui koy gérer <coughs> ngi contractualiser ak euh, ay repreneurs ay privés yi nga xam étudiants donc ci année 2020 mille vingt bi perte ci pratiquement un milliard euh, cent millions yi nga xam ko repreneurs en recette pratiquement 175 millions dem na ci. Si nous ci année bi ñu ñu muy 2021 euh luñ perte de moy 40 millions de francs CFA parce que le 3 le 1er février nous avons déclenché un mouvement à chaque fois de reconduire li nga xamni mom moy journée sans tic yoy ñu que que ngenté tuba ci période bobu tamit fait fay nañ 400 millions de yi euh, restaurant yi hmm bo calculer lepp bon euh, pratiquement xamaguñu kañ lay parce que euh, fu jours pour euh, mois de janvier depuis le mois de janvier Il ñaari mouvement de grève donc jours pratiquement milliard 117 millions nga ci millions un milliard à pratiquement 400 400 1 milliard 400 millions de francs CFA yi nga xam ni. Hmm. Euh, fay nan que repreneurs yi. mais ci recette interne yi ñun nañuy perdu parce que loolu nañuy soxla parce que étudiant bi nga xamni da fay dugg ci restaurant bi di di lek da fay fay bu duggé ci pour ndékki fukki deureum wala bu agn mu fay ñaar fukki deureum mais lolu xeyna na na mais buñ ko xép parce que recette interne yooyu moom mooy ñuy permettre li nga xamni ni dafa bi nga xamni état bi mi ñukay jox.

ma génnee benn communiqué euh, au niveau euh, donc public euh, ñu afficher que ci biir université yi jaarale ko ci presse bi pour wax ni li étudiants yi di def baaxul pour sensibiliser ñi nga xam en tout cas moy étudiants yi au niveau de l'université loolu tim ba mu jeexee dajé nañu ay daj yu bëri ñi nga xam ci biir université yi waxtaan nañ ci mais tamit jël nañu ay ñi nga xam ni ñoom ñoo dëkk aux alentours de l'université moy village environnant ni leen waxtaan leen ak étudiants yi donc pratiquement wax waxtan waxtaan nañ entre en entre famille hein, donc de l'université même ministre euh, donc euh, bi nga xamni moy Cheikh Oumar bi yoré enseignement supérieur woon na leen ñu ci lolu pour lolu ñu bàyyi ka parce que baaxul d'autant plus que boudé pratique la bi nga xamni euh, do ko gis fu université Saint-Louis dafa neexul nak université euh, sénégalaise yi nekk fi ñu yor lu ci juroom université benn pratique ñu koy gis biir université. mais parce que étudiants yi tamit dañoo am ay jambat mo waral sen grève mo waral sen ngénte tubaab gi li ñuy wax journée sans ticket. nga xamni kon septembre ba légui ñu ci nek jàmbat jàmbat euh, jàmbat jàmbat bu bu ñu gi buñu tambalé ci waañ wi. Euh, fi ñuy toggé ci euh, juróom-ñaari toggu kay ñett rek kay dox nañ sax. Euh, cell lay ba ca waré itam yooyu yëpp amul lolu la cooy tontu ndax yow responsable non lolu lolu lolu nekul parce que chiffres yi da da fay fay da fay da fay joxe leneen euh, du togg du fu ñuy toggee moo am problème dedet congélation bi mo am problème te ba mu amé problème matagul 15 jours lu ñuy wax ni dañuy yok par dañuy yok par moment dañuy toog ba si yàgg génnee ñaari sujet ñaari sujet yooyu ñu réglé ko ñu génnewaat beneen sujet donc pour wane ni étape par étape. waaye bu ñu doon toppukaay bu ñu doon ay cin la nga na ay cin yu mag la moo moo ëpp sax mbana. Mhm. bu dee juróom-ñaar moo ca war a am ñett di dox. du mën du du toggukaay bi. Ah. dama ni la toggukaay amul problème. Hmm. production musul am problème au niveau de l'université. la preuve fréquentation. est-ce que seen juróom-ñaari toggukaay yëpp a ngi dox fi mu toll du juróom-ñaari sax toggukaay noonu am am nañu plus de soixante toggukaay. Hmm. ça n'a rien à voir avec toggukaay manam bo jëndee ay légumes wala nga jënd yàpp dang nga koy dugal ci congélation bi monam repreneurs yi dañuy ñëw pour jënd li nga xamni peut-être pour un mois pour am stock de réserve pour permettre len à chaque fois ñuy def production continue légui nak ci juroom ñaari congélation yoyu ñu am dafa am ñett yi nga xamni dafa paan ci ñett euh, juroom euh, fukk ak fan yu yu mujj mais lolu génne wul production en réalité parce que si dé xayma ci production euh, étudiants yi 4000 nani par par par repas mais nous servir par jour mais ci période où ñuy wax ni dafa am problème congélation àgg nañu ba 5000 étudiants yi nga xamni problème de donc amul problème production donc en réalité ça n'a rien à voir amul problème ci service yi nga xamni CROUS mi étudiants

20 biñu biñu jall 1 milliard 117 millions de francs CFA xam nga lolu koko ko nit ba paré nga naan ka feesalal juroom ñaari congélation koko da nga koy indil problème en réalité lu ñuy lu ñuy lu ñuy jënd maanaam ay ñetti fan lay mat après dem jëndiwaat ainsi de suite noonu lay demee en réalité ñom tamit dañu nekk si ay difficultés malgré difficultés yoy ñuy ñi ñu ñu ñu malgré xaalis boobu ñu leen yoré ñoo ngi def ay effort énorme pour que étudiants yi à chaque fois bu ñu ñëwee ñu mun leen jox ñu lek jox leen ñu naan donc il y a des efforts qui sont en train d'être faits et pourtant effort yooyu noonu ma lay wax bo la comparer journée sans ticket yi milliard 117 millions nanu nanu lanu lanu lanu lanu jar la jar ci ñun té ñoo ngi reprendre un milliard zéro millions de francs CFA tu vois da ngay gis nettement que donc journée sans ticket yi donc moy indi problème de telle manière que état bi mëna mënati suivre mom motax nous ñu leen sensibiliser à chaque fois ni leen bàyyi en réalité li ngeen di bataille yéen seen bopp ngeen koy ngeen kay teg li nga xam ne mooy restaurant yi restaurant yi kenn lekku ci lu dul étudiant donc boo leen di teg ay acte même bu dee ay congélation ak leneen ak leneen nekkul campus bi amul jafe ndax euh, léeg ndox manqué léeg-léeg euh, assainissement bi itam ndox may ball ndox mu bon ba di ball di xeeñ loolu yàgg nañ koo jàmbat loolu itam lu ngeen ci def boobaak léegi mais loolu euh, sëñ Babacar xanaa suivre actualité bi loolu problème mu ndox doléance la bi nga 15 ans. université saint <laughs> <laughs> donc damay damay wax ni. xam nga xam nga dafa am li nga aussi dañ koy dañ koy wax rek te étudiants yi ay c'est vrai que ay xale nanu ñu yaakaar ci ñoom mais avant tout ce sont des sénégalais difficulté yi nga xam sénégalais yi ñoo ngi koy à sax parce que ce nga est ni problème ndox mi le président de la république dafa sommet SONES mu au tabac, fa château d'eau château d'eau bu bees tàq bi nga 250 mètres cubes lay produire par jour ba donc deux bâches il nga 150 mètres cubes pour université am autonomie et pourtant département de Saint-Louis top, toute une semaine du am ndox université ñu privilégiée que di ko jox étudiants pour ñu am et pourtant Sanar n'a pas université bi existe, mu

mais li nga xamni moy problème assainissement bi moy université dafa yok bu jiwul tam war ta dafa dafa yokk. Ah. université dafa yokk parce que bu yoké il faut que infrastructure yi and ak mom ñu yok mais le problème qui s'est posé malgré que université Saint-Louis moo ëpp capacité en termes d'hébergement ci université yépp yi nga xamni ne ñoo nekk ndar parce que ñun nous sommes à un taux de couverture bi nga xamni de quarante neuf de presque cinquante pour cent étudiant sur deux est logé donc ça veut dire quoi ku xam université nu muy doxee ñun ñi yëpp ñi nga xamni jaar nañu université bon man université Saint-Louis la la jaar xawma pratique yi nga xamni, dunduma en tout cas pratique yi nga xamni wa Dakar dundoon ko mais bo dé xol ci jàngat bo ne un étudiant sur deux est logé ci biir université Saint-Louis ça veut dire que tout le monde est dans le campus social ce qui n'est pas le cas nekul cas bobu mo nekk ci yeneen université yi donc université Saint-Louis

donc li yi nga xamni ne yokku nan calando ci fi am ba non calando foog xam nga kalando warul am budé dañuy dañuy dañuy doxel donc yoon mais kalando bo démé la nga xamni moy ñu fatel mbokk auditeur yi xamul euh buñ euh, né nek sangam ab étudiant lañ ko jox koku rek mo ci wara nek waye ginnaw yef yëf yu doyul da ngay indi say mbokk mba xarit ñaar mbala ñett ngeen bokk nek waaw lo lo lolu ciosanu sénégalais rek la mm. parce que dañu tam solidarité mais ñu mënta ñak voilà li nga xamni en réalité France et pourtant sommes couverture li bu France 15 pour la ñun 49 nous ñun ñoo France dafa fekk ni ñun suñu culture dafa nu may manam suñu aada que ñu gis nit te ko lolu kessé la. mais bu lolu du bu du am mat du am mat du am mat am université du ben université ci ba ci pays yi nga xam ni dañu développé amul ñuy jël étudiants yëpp di leen loger amul fenn mate donc rawatina ci li nga xam ni mooy pays yi nga xam ni dañu nekk ci benn euh, en voie d'émergence. mënu mais foog foog ñu analyser tuuti ndax tontu woo ci senn yi néeg yi di senn. non non non ak ndox moom mbon mi ball foofu. loolu néeg buy néeg buy senn ci bi parce que exceptionnellement année bi ni mhm. avec Covid bi. mais seigne bi tam da war ta sen wa xaaral ma ñëw baaw kat boo ma rek dina ñëw. Ah. dama ni exceptionnellement année bii nii euh, euh, euh, comment dire je université dafa tijj au mois de septembre. mois d'octobre, lay mois d'octobre, octobre dafa doon fekk ni taw yi dafay jeex dans le nord. C'est la première fois que ñu tijji ci navette bir Saint-Louis donc c'est une expérience la bu bess expérience boobu bu bessé néeg yi nga xamni mom moy sen te juróomi néeg la juróomi néeg dafa fekk ni ba tabax li nga xamni logement yi nga xamni ñaari junni euh, étudiant ño fa waroon fanan donc dafa yexone ba mu yexé ñu jëlone yi nga xamni moy mooy conteneur yu nekkoon yu ñu den def euh, te Ablaye wad doon def événement wam aar bobu nonu noonu dans surtout sax Fesman mhm. donc ñu abal ka wa université. mooy pavillon préfabriqué voilà préfabriqué donc yoyu nañu def fofu nonu en attendant que pavillon yu bess yi nga xamni mom la réceptionné ñu réceptionné ko donc lool mo doon sen c'est tout à fait normal ba mu senné tamit ci saa ci defar nan ko c'est nonu jël ñi nga xamni moy 8 huit yoy nga xamni 4 étudiants ñoo ci doon nek muy 32 euh, étudiants ñu yóbbu leen pavillon yu bess yi donc mu jeex li nga xamni mom moy mooy aussi euh, problème assainissement bi waxna ni bu ñu démé ba nga xamni yi nga xamni moy investissement yu ñu wara a def quatre vingt nanu tabax université bi 90 nañ ko tijji pour 5000 étudiants Nous, avons ba nga Saint-Louis mat na presque 12000 étudiants La production nous New ñi Nous ñu problème Le président de la république a fait un château d'eau 250 m cubes d'eau mu une pression bu metti bu yokku ndox mi c'est normal 80 li nga xam lu ni naan doy dox ne doyna na doy dama ni. garab ya ngay dé sax ndax mënatuñu leen rosé non non ban ban garab garab ku kay ku kay xam nga jamono gi kuy jël garab. mango ya fa newoon mënatul kuy roose meññetul ndax. yow baaw kan kuy mm. kuy jël garab garab rek diko ko ak garab ak ak dox SONES bi rek. loolu yakala yow tamit ñun on est branché li nga xam ndox bi dafa am ndoxu dex dañu am dex Saint-Louis te ndox mom ñi rosé ci dex gi lay jógee ça n'a rien à voir donc production bi nga de 350 mètres cubes par jour nous pouvons produire 80% de production boobu ñëpp xam nañ ni eaux usées lay dem mu infrastructures depuis 83 c'est normal d'exploser. exploser moo président aussi sommet ONAS mu nous defar réseau assainissement bu baisse ci l'université. c'est vrai que depuis lors donc ñu ngi mais li nga un budget CROUS attend que, vous nga xam pompes ay pompe la donc chaque année nous y une ay pompe et defe naa ni déggatuñu donc mbir moomu au niveau de l'université léegi wàllum journée santé bu ñu ci dellusee euh, mbir yi nee na nga ay weer a ngi ni ñëpp wax nañ ci notable yi ñëpp wax nañ sottiwul étudiants yi ba léegi ne ñu seen ñaxtu léegi lan moo ci solution ndax yéen a ngi xalaat solution radicale maanaam euh, comme que yéen euh, respecté lu leen sart yi ngeen tëj wala ngeen xool ni ngeen def ak ñoom lan moo ciy pexe fi mu toll nii. non c'est très simple xam nga loo gis ci àdduna dafa am da nga am ay droit Euh, yow da nga am ay droit mais à côté da nga am ay devoir restaurant yi mooy kuy dugg da nga war a fay da nga war a fay sa ñaar fukki dërëm loolu dem na ba nga xam ni jéggi na dayoo mais nangoo too fay kañ kon restaurant yi kañ mënatul produire moom moo tax ñu ni euh, léegi dorénavant à chaque fois que étudiants yi jàpp nañ ni ñaxtu bi dafa leen jaral ñu dem ci biir restaurant yi te duñu fay ñun tamit donc suñu devoir moy ñu tëj restaurant yi ba nga xamni ñom daanu bëgg daanu fay ñu tëjil leen ko c'est aussi simple que cela. Hmm, bu nga ko tëjee du compliqué. ci xultu yeeg yëngal yi. waaw mais lolu babakar ci aduna la bok parce que li nga xamni aussi mom moy suñu ay responsabilité en tant que autorité suñu responsabilité en tant que grand frère suñu responsabilité tout juste en tant que sénégalais moy que ku nekk dafa wara jël li nga xamni mom la mom munoo jël li nga moom jël keneen li mu moom parce que li nga xamni mom nañuy fayé le restaurant yi xalisu contribuable li la dañuy ñëw président de la république jox étudiants pratiquement on est à 11700 étudiants ci biir université saint louis aussi 11700 10 10000 yépp lu ëpp 10000 am nañu bourse loolu moom mën nañ ci d' accord bourse donc ku am bourse vraiment tu as tous les moyens tu dois payer dëgg yàlla nag sax di lekk di septembre ba léegi itam xaw euh, waxtaan bi jeex na waaye euh, ku la dégg xam ne politicien nga euh, booyu Mansour fay nga sax maire Saint-Louis est-ce que xam ngeen ni bu ngeen deful nag mari Teuw Niane ñëw dal seen kaw yéen a ngi koy sóoraaleem. Marito affaire la bokk. waaw mais bëgg na place bi Mansour fay toog ca Ndar mu toog fa. moom bëgg na Marito bëgg na place yëpp je crois que c'est un Sénégalais Sénégalais la am na droit bëgg lu ko neex. mais ñun ñoo ngi ci benn partie bu tudd affaire ñoo ngi ci benn coalition bu tudd Benno Bokk Yaakaar donc moment bu ñëwee donc lu war a xew dina xew bu soobee yàlla. wala nga foog ni Mansour Faye li mu doon goro président moo koy may sañ doole eh, lu mu bëgg rek ñu jox ko ñeneen ñi ñàkk am noonu la. pré euh, Mansour Faye euh, c'est il fait partie des pères fondateurs maanaam ña nga xam ne ñoo sanc affaire ca la bokk euh, nekkul ay lien de parenté moom moo tax mais ña nga xam ne ñoo sanc affaire donc ñaka ñaka tabax ñaka bind euh, ñaka xex donc ci jamono ba nga xamni kene hamni bëgg ko won ba nga xamni ñu mel na marito ñew nañ ci ci après deuxième tour donc euh, ci la bok donc euh, pratiquement donc lolu kene mënul def leçon ci côté boobu daal mhm. jërëjëf med ma ngeen bëgg tuddé Macky Sall nag fomm ngeen kom ginaaw ciow amon na ca fomm amu ci conseil municipal bi mo lolu rolam la li nga xamni euh, mom mo am moy commission bi nous mettre en place mom mo proposé loolu. jam nañu ba nga xamni Covid. du ngeen ko def dal li nga xamni du du loolu du sama ressort mais li nga xamni conseil municipal bi mom moko wara adopter a adopté adopté de façon très responsable incha allah. jërëjëf euh, jërëjëf jërëjëf ci ci waxtan bi sunu gan nekkoon Pape Ibrahima fay directeur général CROUS centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis jërëjëf Alaaji jogu Diène ñu ziar Fatou ak ñamu nekkal ñu yendoog jamm sousmarin.com.